bu ñu tëj euh, chapitre màggal gi am na tamit coow lu am fan yi muy réseaux sociaux yi nga xam ne gis ne ay ndaw si yoo xam ne daanaka ci Macky Sall sa la bokk jëkkëram muy Askia oh. ay or ñi ci wax est ci màggal gi la bokk wala. waaw loolu nag euh, ci màggal gi la bokk ak bokk ci mooy man damaa gëm ne rek soxna si day feeñal mbégteem ndax ci màggal gi moom bu fekkee dafa am ay oram jëkkëram teral ko du ko takk ci dem ci xew yi di Mumbaay takk ko ci benn xew. lu xaar ba bisub cheikhul khadim bi ñëw mu takk ko di feeñal mbégteem loolu wax dëgg yàlla man de bu ma ko moon defal ko sama soxna man bu ma or yooyu mu jox soxnaam su ma ko moon jox ko sama soxna nit nag da ngay da ngay rafet njortu di xalaat xalaat bu rafet c'est très important waaye bu fekkente ni yàlla dafa may nit ki lenn lu ko rek tax ngay waxee xol di waxee dënn loolu ab julli du ko def man nag wax dëgg yàlla askia sëriñ askia tore mi nga xam ne euh, moom lañ dénk soxna Ngoy Fall day sama xarit ci keppaaru sëriñ Saliou ñu bokk sëriñ Saliou ma xam ko bu baax muy nit ku baax di nit ku yiw di ku ma di ko di nit ku mën a defar donc lu mel noonu bu amee nit ñi jël ko di ko ampleur mooy dañoo xamul as Serigne Askia man mi ko xam démb xam ko tey xam naa ne nit ko xam teraanga la nit nit kuy teral jàmm. Macky Sall ma nekk ci ginnaaw président Macky Sall ku ko xam ne nekku ci loolu. as Serigne Askia Touré li mu yor du xaalisu président loolu tamit il foo ñu wax ko mu leer. ko yoree loolu loolu non président nekku ci loolu. président Macky Sall dafa am ci lu mu nekk sëriñ Askia xaritam la wëllëreem la waaye ku xam président Macky Sall xam ne président nekkul ci loolu waa président du doxee noonu sëriñ Askia Touré yàllaa ko jox xéwalu boppam mu terale ko soxnaam waaye nag buñ ci laaxaale président di ci tudd président di ci waxee noo xamante ni déedéet loolu d'accord ma ndax président moom ab liggéeyam romb na foofu. waaw liggéey président buñ ci wax ci dëkk bu sell bi fan yi nga xam ne ñu ngi weesu mu hôpital Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ni jot si 36 milliards d' après les estimations yu état bi joxe moom nañ ko fa te lu gis nañu yow sa taxawaay bu président bi yaa ko doon dalal bi di ko teertu fii ci Touba est ce que mën nga ñëwaat ci ci teertu boobu noonu ak ñëw président fii ci ci ci Touba.